démb nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa këru gendarme bii di DJ Badji te dañu ne daa réer dañ leen convoqué woon nag euh, ngir ñu dem xool ab néew boo xam ne euh, dañ ko for ci géej gi fële ca Saint-Louis ko fii ci Dakar kon wante nag euh, ba ñu demee ba xool ko daal dañoo gis ne kon du néewuk ki nga xam ne kon moom mooy seen doom jooju ñu ne dafa réer ki ko xam ne nag moom mooy maître Koureyssi Ba bi nga xam ne moom mooy awka euh, bu famille euh, Didier Badji gannaaw bi mu amee ñaari retour de parquet ki nga xam ne moom mooy Fadilou Keita di membre cadre Pastef euh, nekkit coordonnateur bu Ndémeeku Tour bi moom nag mujjee nañ ko yóbbu kaso démb moom nag dañ koy toppee daal publier maanaam joxe xibaar boo xam ne wérul wante itam tuuma jëmale ci état bi ak ci gendarmerie nationale xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy réewum Angola démb nag euh, jël na euh, li nga xam ne mooy présidente tournante euh, lii di organisation des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique muy OACP e ñu naan ko président nag ñetti at yii ñu dëgmal loolu nag mu ngi am. si jamono joo xam ne ñu ngi doon amal sommet des chefs d'État et de gouvernement bu boobule kuréel foofule ca Luanda. waa États-Unis dañoo teg daan Alpha Condé nekkoon fi réew réewum Guinée ni waral loolu nag mooy ba mu fa amalee troisième mandat boobu nga xam ne bëri woon na coow lool ba sax ay nit doon manifester mu am ñu ca rey loolu nag tax kon ba ñu teg ko yooyu le daan bokk na ci nag ci yooyu le daan ñu ne daal li nga xam ne moom mooy ay am amam dinañ ko téye. wante itam euh, dinañu tere bépp lëkkaloo bu jëm ci wàllum euh, commerce ak kookule di Alpha euh, Condé xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy njiital réew États-Unis di Joe Biden moom nag daa bëgg fi mu nekk nii daal Afrique ñu boole ko ci g nga xam ne daal day regrouper dix-neuf euh, économie yu gën a mag ci àdduna bi wante itam union européenne moom nag bëgg na kon li nga xam ne moom mooy Afrique daal bokk ci boobule kuréel ñu ne loolu nag dina ci amal ab déclaration ci sommet boo xam ne sax euh, sommet euh, États-Unis Afrique lay doon war a ubbi fële ca Washington mardi treize décembre xibaar sport lañ koy jeexalee démb nag Argentine moom moo éliminé Pays-Bas ci li nga xam ne moom mooy coupe du monde Qatar deux mille vingt deux ganaaw bi nga xamee ne sax deux deux lañ defoon ci biir match bi bañ demee tiro bi ñii di waa Argentine dugal quatre ñoom ñooñ di waa Pays-Bas am ñett kon loolu tax na ba ñii di waa Argentine ñoo jàll demi-finale kon Pays-Bas toog na bokkatul ci coupe du monde bi lu ko jiitu itam Croatie moom moo gagné Brésil moom it ci tiro bi. gannaaw bi ñu defee 1-1 euh, ci match ba kon tiro bi nekk 4-2 loolu itam day tax kon ba euh, Croatie qualifié na euh, ci lii di demi-finale coupe du monde Brésil toog na. bésub tey bi itam ñuy xaar ñaari match yoo xam ne naar naa neex muy diggante Maroc ak Portugal bu 15h jotee Angleterre wala laaleeg France bu 19h jotee.